jërë ngeen jëf comme ni ngeen ko waxee rek ba tey ñu ngi nii toog ak tantaam tantaam nag nekk ki nga xamante ni daanaka euh, yaayam dafa demoon marché waaye moom daanaka euh, mbir yëpp fi la ko fekk euh, yaay booy ñu ngi lay nuyu di la jaale li ñu bokk. maa ngi leen di fay nuyu maa ngi leen di fay yéen ñëpp fanaanoog naqar ak tiis rek dañu fanaanoog. xam mbir mi nan la demee. waaw man nag dama demoon màggali ñibbisi noppalu ko démb tëdd bi ma tëddee jékki-jékki dégg xale bi yuuxoo bi mu yuuxoo ma tëb ci nelaw daw bi ma wàccee seen mu boq yaram bi deret gi sang ko pour man day wàccu ma jéggi sama doom bi ne papa moo ko rey papa moo ko jam moo ko jam ma dawaat yéeg pour bañ tamit mu jam ma ma daw ci laa dawee yéeg ci kaw balcon bi taxaw yuuxu pour nit ñi walla suñu ma daanu foofu bi ma daanu la après ma gis xale bi di kuule deret yu bare bare bare loolu la ay 18 ci yan anam la ko jamee dañoo nekkoon ci kër gi di coow. dégg ma coow xale bu jigéen bi laa dégg mu yuuxu rek ma daw di wàcc gis deret ji moom mu daw ba ca mbedd ma deret ji yëpp wala foofu noonu waaw loolu daal laa ci xam. boobu ana xale bu góor bi. sama doom bi gis na ko mu taxaw ci bunt bi moom nee na gis na ko mu taxaw xool gauche xool droite gisul kenn mu daal di jàdd koñ. Mm-hmm. ban relation la ñu amoon ñoom ñaar. waaw daan na ñëw ci kër gi nag mais man mosuma ko gis daan naa ko romb ci buntu kër gi mu toog daan na xale yi tamit sib bu ñëwee jëlal leen sips xale yi naan papa papa scooter la yore woon mais man xàmmee ma ko su ma gisoon mën mën la kii la su ma ko gisoon mën mën la kii ma papa déedéet. Hmm. la xale bu góor bi amoon bu daan ñëw ci kër gi. mën mën la kii la dama ko daan romb ci buntu kër gi rek mu toog moo xale bu jigéen bi su ma rombee ne asalaamaaleykum dugg yéeg waaw. ati ñu gisoon say doom. di ay doomu baay. Mm-hmm. ak ni mu neexee woon ah, eh, bàcc looloo ma jooyloo xadeeg xale yi benn lañu woon moo leen xam sax ay doom baay lañ comme ñu bokk ndey ak baay ku baax nag ku yaru ku bëgg ay rakkam uuf leen sama doom yi kenn nelawu ci yàlla xam na ko ñoom ñëpp sama nekk lañ fanaan kenn nelawul waaw dëgg yàlla metti nañu lool dañu bëgg nag justice def liggéeyam nag. waaw parce que dafa metti xale boo xam ne ko fekk seen biir kër nga rey ko jéggi dem yomb na torop ñu ngi ñaan daal justice moom moo def liggéeyam parce que lii bu ko defee mu jàll ëllëg kee mën na ko def. bi nga ñëwee ba yam ci mbir mi gis deret ji. metti man dama daanu ñaari yoon dama xam ñaari yoon dama daanu parce que dafa metti paaka la ko jam paaka la ko jam ki saal man man dama yaakaaroon ci ween bi mais da tis mel na raakol bi sotti deret gi sotti fii laa ko seen mu sukk mu def ni sukk après mu am appui jug man ki laa dawee yéeg ci kaw ci balcon ma séen ko muy dawaat ba daanu fële foofu la deewee ci kër gi la ko jamee man gis naa ko ci kër gi moom bi ma sëppoo fii mu yuuxoo sëpp naa ko tiim ko gis ko mu mu sëgg deret ji bari mu am appui jugaat dawaat génn deret ji di ko sang muy daw ak moom maa ngi yuuxu ba bëgg nit ñi wala suñu parce que dama tiit mais dafa yomb ñëw fekk nit ki ba si biir këram rey ko dem justice na def liggéeyam fu mu mënti nekk ñu def li war ci moom parce que tamit xale bu toll ci jàng amagu sax vingt ans décembre lay am vingt ans nga ñëw rey ko jéggi dem dafa metti waaw dafa metti ndax mosul woon ñëw di leen kalaamee xale bu góor moom daal bëggoon na ko bàyyi moom li ma remarqué moom bëggoon na ko bàyyi parce que avant màggal xujje mi yor la téléphone xadi yor ko ci kaw ma ne ko doo jox téléphone xadi mu ne ma papa koy woo nee na bëgg ko jël loolu moom dégg naa ko ci moom à part loolu xamaatuma ci leneen waaw. ku ne demul si mbedd bi fii la gaañoo ñëpp di ko gis loolu dafa ñaaw tamit te aussi nañu xoolaat euh, santé bi parce que nit ku gaañu 18 nga ñu gaañ la ñu ne kenn amul droit jël la ni ngay souffrir ba dee tamit loolu suñu mënoon nañ ci dimbali daal pour ñu dimbaluñ ci. dañu yéex a ñëw. moo nañ ko dimbali ñu sauvé ko mais nit kuy souffrir ba xëy de ba dee dafa metti say mbokk jël tiim mënuñ ci dara metti na de. métti na trop. ki nga xam ne àq njureel ni mu mel. ak koo xamante ne amoon ci moom yaakaar. sëñ bi boo ma xoolee xam ne ñun am nañ nakar lañ fanaanoon moom lañ nar a yendoo dafa yomb ci ay seconde nga rey nit dem yow doo xam li lu muy ndiru dafa yomb dafa metti dafa yomb. ñaata message boo xam ne di ko lancé ñi nga xamante ne ñooy justice ak ñi nga xamante ne aussi tamit ñooy def xeetu ñaawteef yi. waaw ñu koy def daal na leen justice dañoo war a def ku rey ñu rey la. li yàlla waxoon tant que dindiwuñ ko defuñu ko duñu am jàmm parce que yàlla moo ko wax ku rey dañ la war a rey buñ ko doon def kenn du ñemee rey parce que boo xamee su ma defee li lée ma ci fekk doo rey parce ku ne xam nga ne jël bakkan neexul sëñ bi nañ waxante dëgg justice na def liggéeyam ku rey nañ la rey peine de moo fi war a am ku rey ñu rey la parce que lii booba léegi ñëpp nga koy wax buñ ko deful ñu am jàmm suñu njaboot léegi yow léegi yow boo toogee sa kër ñu rey la léegi fan ngay fan ngay rëccee fan ngay rëccee doo dafa metti de metti na trop. mën nga ñu wax am si xadi. ah mu metti nag bu ñu sañoon mën na fi ndax toll na ci sëy toll na ci jàng jàng ba am jëkkër ñu maye ko loolu la ñu xaar ci moom mais seentu yoon ci moom lii wallaay azim bëgg sa bëgg samay doom bëgg samay doom bëgg samay doom rek bëgg samay doom man gisante barki démb laa jóge Tuubaa ci guddi gisante wuñu ba ma ñëwee ba tey gis dama tëdd noppalu gisante wuñu wax dëgg yàlla gisante wuñu lu dul bi muy sukkuraat laa ko gis ma tiim ko muy sukuraat bu metti nag waaw. du ñàkk seede yoo xam ne di nga koo def ci moom ak nekkinam ci koñ bi aussi. kenn xamul leen dara ñoom wax dëgg yàlla amuñu xarit amuñu àndandoo lu dul jàngi kër gi amuñu xarit amuñu àndandoo ñoom ñoom doomu bàyyi ñooy ànd ñooy demalante ñooy dikkalante vraiment ay xale yaruñu lañ amuñu benn problème waaw amuñu benn problème amuñu benn jafe-jafe dëgg yàlla. dégg ngeen jëf mbokk yi comme ni ngeen waxee ba tey rek ñu ngi nii toog ak ki nga xamante ni moo fi nekkal borom dëkk bi di monsieur le maire euh, euh, euh, cheikh bi ñu ngi lay nuyu di la jaale li nga xamante ni moom la ñu bokk waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen nuy nuyu ñëpp di nuyu waa Kër mbay Fall yëpp di naqarlu li fi ab démb di xam ne vraiment tey yeewoo nañu ak naqar gu kenn mënul wax ndax li fi xew jéggi na dayoo lool lool lool ñu ngi jaale dëkkandoo yi jaale mbokk yi jaale ñëpp xam ne daal vraiment li fi xew daal kenn mënu wax daal ni méttee metti na lool si xol metti na lool waa ci côté xam ne yéen a dëkkee fii nii comme yaa ngay wax léegi yi daan dafa xew ndax daan ngeen jël seen matukaay ci côté sécurité. waaw daan nañ jël suñu matuwaay si côté sécurité bu baax parce que boo xoolee koñ bi fii daanaka ñëpp benn lañ def nañ fi ay comité taxawal nañ fi mag ñi di waxtaan lépp loo xam ne bokkul si koñ bi dañ ko daan xeex ba tey jii ñu juguñu si. waaye nag peut-être lii am ni bett nañ ñëpp bett nañu ñun ñi nga xam ne dëkk nañ fi bett nañ waa kër gi waaw loolu daal la am lu si wax. message boo xam ne di ko lancé ñi nga xamante ne ñooy jeunes yi ak euh, côté ñi nga xamante ne autorité yi yan matukaay la war a jël ci parce que bari na aussi tamit ci dëkk bi lool. jeunes yi moom message bi may lancé si jeunes yi mooy nit soo ko bëggee si li ñu wax ne peut-être copain am la nit soo ko bëggee da ngay am fulla nga am fayda te mu wax ak ay parents jeunes yi dañoo war a xam ne. banditisme amul amul mucc xale da ngay dem liggéey wala nga dem jàngi métier soo demee ba yàlla dimbali la nga gis koo bëggante demal si ay ay ay parents ñu nga waxtaan ak ñoom si fulla ñu may la ko. Hmm. masalla ànd ak conseil municipal euh, mi naka nga en tant conseil municipal ba ma yëgee ba ma yëgee affaire bi woo nañ sapeur woo nañ police woo nañ envoyé naa monsieur le maire nekk fi envoyé naa ko message. képp ku ne si conseil bi muy secrétaire municipal. woo naa leen yëgal leen affaire bi ñoom ñëpp yëg nañu information bi. ci temps bi ñu teel a ñëw wala yéex nañu ñëw. am nañ jafe-jafe si temps bi. Sénégal moom ñëpp xam nañ ne. nit tey bu fa amee jafe-jafe si ay ay yu mel nii. négligence day am. te réew warul doxee noonu. il faut ñu xool ñu xoolaat mbiru santé bi ak ñi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe yu mel nii bu ñu woowetee sapeur sapeur dafa war a am gis nga dëkk bi Kër Mbaye Fall dafa rëy rëy boo xam ne benn poste santé bu mag yu mel nii waroon nañ ko sooraale sapeur waroon na am fii ci dëkk bi ba bu lu mel nii bu amee ñoom ñu ñu mën ñu mën ko jël yóbbu ko jéem ko sauver mais bu fekkee dañuy woo sapeur sapeur war a jógee Tëngéej wala war a jóge dakaar mais loolu c'est trop loolu il faut ñu xoolaat ko te ñi dañ si dañ si ñu ngi si ñaan képp koo xam ne yàlla may na la euh, baat ci réew mi Kër mbay Fall dafa soxla lool parce que lii jéggi na affaire maire maanaam soxla nañ loo xam ne sapeur dafiy am hôpital am fii yàgg nañ ko kaas dëkk bu mel nii amul hôpital amul dara jafe-jafe la parce que mooy wala lii yëpp bu amee dox doo xam foo jëm boo woowee tëngéej balaa ñoo ñëw ñëpp xam nañ ne embouteillage dafay am kon dëkk bi war na am sapeur boo xam ne wala hôpital boo xam ne wala loo xam ne bu kaa yi amee dina la mën a jël en attendant defal la ay soins yoo xam ne dina la mën a sauver loolu ñu ngi koy ñaan bu baax chaque jour ñu ngi koy wax dëkk dafa soxla yenn yi waaw négligence moom am na am na am na bu baax sax est-ce que jàppoo tamit nag jot na ci suñu état bi. Hmm. ñu xoolaat beneen doxalin ci wàllu euh, sapeurs yi muy ñuy sauver nit ñi. Hmm. Euh, ba diggante yi ñëw xat na am na jafe-jafe. Hmm. ngir ñu teel a agsi. est-ce que waruñu doon jël beneen ci wàllu délégué de quartier yi moo xam wala ci maire bi. ñu jël en charge ci nga euh, mel ni dal ko ci biir koñam. ci ay ko di ko xool muy sukuraat. bu xëy na bu ñu ko jëloon ko ñoom mun am suñu borom muccal ko. ñuy xaar sapeur di xaar ba mu ñëw lu mat une heure quelque. ñu ñëw toogaat fi daal ne génn àdduna ñu xaaraat police parce que am na fi deux de temps jëm 3 heures de temps doon koo génne ci koñ bi est-ce que jotul woon état bi xool beneen doxalin euh, képp ku war a mën a jël responsabilité yóbbu ko hôpital ñu jël ko téye ko doon xool nag wàllu enquête ak yooyu waaw loolu xam nga loolu moom loolu mooy dëgg man démb def naa si li ngay wax nii en tant que conseiller municipal man woote naa dispensaire bi ñu gën a jege laaj leen ambulance bi dañ ko soxla parce que ambulance bi ambulance yu dëkk bi la yaakaar naa waa dëkk bi tey bu ñu soxlay ambulance dëkk bi dañ ñu ko war a jox surtout na nga nekk autorité nekk si dëkk bi yaakaar naa boo wootee rek ne ah jafe-jafe am na soxla nañu ambulance waruñu chercher lii ak lii dañu war a jox loolu parce que ñoo ko moom kenn moomu ko benn kilifa moomul ambulance yooyu xaalisu dëkk bi lañ ko jëndee kon bu ñu ko soxlaa dañ ñu ko war a jox loolu négligence la te man maa ngi koy méttiir bu baax a baax. parce que nañ woote naa dispensaire bi dispensaire bii laa woote jéggi péage jot ko ne ko dama soxla ambulance bi. mais yi may doon wax ñun soxlawuñu lool parce que nit ku ne ci urgence mënul taxaw nga koy wax fii ngay jaar rek nangam nangam urgence bi dañ ko jënd pour commune bi commune bu ko soxlaa ñi nga xam ne ay ay ay ay ay agent mairie lañ wala ay conseiller lañ bu ñu soxlaa jël seen téléphone woote nan leen ko yombalal jox leen ko parce que cas urgence loolu amul cest diir réew mi nag ñëpp xam nañ ñu muy doxee loolu dafa war a dañ sante zéro nit day feebar dem hôpital xaalis lañ lay njëkk a laaj loolu moo fi dañ il faut ñu xoolaat santé bi yombalal nit ñi parce que réew boo ci nekkee nekk citoyen bokk ci dëkk bi di contribuer ci dëkk bi yaakaar naa ne jafe-jafe yooyu war nañ ci mën a génn Sénégal mooy ñu yombalal nit ñi sénégalais yi faju ak jafe-jafe yu mel nii voilà. Hmm.